salaamaaleykum di présenté wu kàllaamu BF kàllaamu Baye Fall business ak conseil noonu la sama chaîne bi tudd man maay joxe cours code de la route yi euh, si kàllaamu wolof di ko def maximum si kàllaamu wolof waaye dafay am ay xam ne nii duma ko mën a traduire euh, ma ñëwaat fii indiwaat beneen boo xam ne nii dafa ànd ak seede doon ko utiliser wan leen di wanaale booy def examen théorie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 Euh, voilà le CD, le Donc euh, pour installer ce CD, on doit le mettre dans l'ordinateur. Voilà. Et on doit d'abord l'installer. waaw balaa ñuy mun a utiliser CD bi dañ koy dugal ci ordinateur ba pare ñu installé ko gis nga boo dugalee CD bi ci ordinateur exemple comme ordinateur bi da ko directement au cas sa ordinateur ibbiwu ko directement mais gis na seede bi da ngay def nii nga dem si benn dossier euh, nga ñëw si seede bi mun na ko ibbi fii wala nga ñëw si ordinateur nga ibbi seede bi mu ibbi fii léegi su ko ibbee fii logo bii nii ngay gis moom ngay bës pour mu installer ko nga bës xaar waaw mu demand la procédure installation sama ordinateur bi comme néerlandais la nekk nag loolu tax nga suivre bi ci kaw installé na ko léegi bu ko installé normalement logo bi di nga ko gis ci bureau bi mi ngi nii ibbeeku na permis réussi waaw fu ne nii nag question yaa ngi nii bu la neexee nga changer langue bi nga bëgg jànge français amul nag wolof langue yaa ngi nii comme si dëkk bi ñu nekk ñaari langue la am ba ñett euh, néerlandais ak euh, français donc euh, français peut-être ngay utiliser man nag fii laa yëpp ay questionnaire la cest de dire bi pour questionnaire la mais en même temps di nga si jàng si questionnaire yi man bii laa utiliser woon technique euh, de conduite doon def exercice bi pour wan leen lu muy demee exemple mun nga bës voiture un soo ibee voiture un mu ne la ba xam da nga ko ré de score bu mujjee bi danga ko bëgg a euh, def zéro nga def waaw c'est juste pour montrer comment utiliser le CD je pousse normalement A d'abord sur la pédale de frein B d'abord sur la pédale d'embrayage C en même temps sur les pédales de frein et d'embrayage voilà bu doon question bu ñuy répondre da ngay répondre nii rek même booy def euh, examen nii lay demee dañ lay poser question bu jox la ñoo ñaar ñett nga choisir donc boo waree freiner normalement da ngay freiner bul doo bës embrayage ba pare doo bës frein wala nga bës ndoo ñaar yëpp léegi question boobu jàll mu dem ci beneen question. Pour accéder à cette autoroute, je dois accélérer. booy dugg autoroute da ngay parce que autoroute vitesse yi ngay dawee si boo nekkul autoroute autoroute lu bëri nga xam. plus de soixante dix nga war a daw donc moo tax boo si dugg ngay accélérer pour yóbbu sa vitesse à quatre vingt. donc man lii c' juste pour vous montrer comment mm, nan la ñuy installer euh, comment installer le CD donc, donc c' ça l' le changement de côté pour le stationnement. bu fekkee ça t'intéresse donc euh, da nga war a dem en même temps outil mm, CD bi wala beneen CD installer si jàng si. théorie bi pour ñuy def examen donc c'est très intéressant waaw loolu laa leen doon indil ci vidéo bi donc di leen wax euh, prochainement ñu indiwaat beneen xeet lépp jëm ci wàllu nan lañ war a def ba réussir ci permis nan lañu war a mën a dawalee dawal bu correct dawal boo xam ne nii di dimbali sa bopp dimbali ñi ngay bokk ak tali bi loolu lañ ciy jublu kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah incha allah kon continuation